jërë ngeen jëf mbokk internet yi bàyyi seen bàyyi xel suñu site internet suñu actu point com ngi leen di nuyu leen sant di gërëm ci bàyyi xel gi euh, ñii na ngi ak ñun nag ci programme màggalu ko Poroxaan édition 2018 gis ngeen euh, li nga xam ne moom di wàccaayu màggal gi seen euh, site internet suñu actu point com ñu ngi leen ci ànd ak yéen ba ci li nga xam ne moom moo di bisu màggal gi niki tey jii xam ngeen nag màggal gi am na solo ziar yi am solo njàngum alxuraan mi waaye tam dafa am leen jotaay boo xam ne nii moom moo ci am te ki nga xam ne moo di Serigne Mountakha Mbacké di xalifa général di murit baaxoo ko amal ak kilifay aada yi maanaam délégation bi nga xam ne nguur Sénégal moom la fi yebal ngir mu ñëw jokkalante ay kàddu ak Serigne bi xam ngeen ni jotaay boobu le xew-xew boo ci mënti gis day uh, am solo ndax xam nga ni kilifay diine ak kilifay aada yi ñoom ñoo séq adduna te bu xew-xew yu mel ni amee war nañuy séq jotaay waxtaan waaye itam war nañuy weccante ay xalaat waaye tam jotaay bi ci la Serigne bi di adressé wu ci taalibe yi ci la bi di waxtaan déwén ak jàmm dénk leen waaye itam soññ leen ci liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak yeneen i mbir yoo xam ne ni mi ngi ci biir kon daal cérémonie officielle u màggalu Porokhane la a door ni mise en place bi door na ci bi juróom-ñeenti waxtu jotee jamono yi nag kilifa yi ñu ngi commencé ñëw ndànk am doole daan ci faral di nemmeeku jëwriñ ji gàll lu jëm ci wàllu biir réew mi tey nag xamaguñu kañ la doon mais lu ci mënti doon rek xam naa dañ leen di bàyyi ak image yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo di euh, kilifa yi su ko defee ñu ànd ak yéen cérémonie bi ba mu jeex ak jàmm kon jërë ngeen def ba si kanam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 yàlla yàlla jox barke soxna jaara bu defan suq ak cuune du ñu wan ki ñuul doole doole ko ñu cim nen soxna jaara la ñuul masula julli te jàppul masula julli te wildul doole kay sangam tuubal daal wër këram buubal nuy jaayi dëkkandoom nu ji yekk jigéenam soxnante njaayi mbokkam saalan sa maaram loola waral sa njaabaan sëriñ gaawaan rekki bamba jaamam jaam sayla jaam baatin bamba la kami kaadam soggu ndeego la jébbal kaalanta dem rootil donga yi xayu toolam soxna jaara moo sellal donga yamu daa rootal seen jeneer ba moo niital sawru faal sawru faal moo jëfal ba leeral moo tax dëndam yaa nguy jib sëriñ bi damay tàmbali di yëkkati sama kàddu di la jaale mbokki taalibe yi fi doon ñëw ci bés bi te yàlla def ñi yam ci yoon bi ci accident bu metti bi fi am bërki démb ma ngi di leen ñaanal ci turu président de la république yàlla xaare leen àjjana sëriñ bi am naa mbégte lool président yabal ma fii yabal ma ci sama sëriñ yabal ma ci suma waajur ci bés bii muy bésu Poroxaan bésu màggalu maam jaara waajuru Cheikhul Xadim jaaratulaay garaat la bu ñu ko takkal te loolu mooy tekki jigéen gi dëkk ak yàlla te loolu lépp jaamu yàlla ak rafet jikko moo ko ko may maam jaara aw turam di soxna Mariama Buso aw fanam guddul ndax fanweeri at ak ñett rekk la dund waaye njariñ rekk la lim boobu la yonent yàlla isaa dundoon àggale mission bi ko sunu boroom santoon maam jaara tamit liggéey na ci diir boobu lu waral tey àddina fépp di réer di wut di riir di wut si fii di siyaare si njabootam ak bërëbam yi maam jaara teel naa mokkal alxuraan ci waajuram bu jigéen nekkoon na it ku daan bëri ay julli nekkoon na it ku bari woon lu mu daan joxe alalam ku fonkoon maam Mor Anta Sali sëriñam maam jaara àdduna ba mu daj ci histoire lislaam amul benn jigéen bu am bés bu toll ni bésam bii kon tey ku fi ñëw war ngaa ñaanal soxna jaara tey ñaan ci barkeem ñi ngi ñaan mboolam jigéen ñi fi ñëw ak ñi ci réew mi ñu jéem a roy jikkooy soxna si rawatina nag ñuy dëgmal journée du 8 mars mbootaayu xeet di jagleel ko jigéen ñi daara ji nekk poroxaan bokk na ci kéemtaan yi nga xam ne mi ngi fi feeñ ndax foo mën a wane ay junniy dongo ñu bokk benn tur bu ñu fi génnee mokkal alxuraan ak seen xam-xamu diine yépp boole ci yar bu rafet réew mu mu bari jàmm na fa bari ñu ñaanal sëñ Moustapha Bachir mi nga xam ne moo ko sosoon sëriñ Muntaxa yow mi sas boobu nekk tey ci sa loxo yàlla def bi fi sa mag ju baax jooju sëñ Sidi Maxtaar làqu bu yàggul nga dolli ci toog toogaayu sëriñ Touba. àddina bi yépp di la ñaanal te di la yéene nga yàgg fi lool te wér ndax taxawaay bi nga amoon ci sa yoonu maam sëriñ Touba bi fi sa waajur yu baax yi nekkee woon ak bi fi sa mag yu baax yi nekkee woon kenn ku ci nekk nga topp ko ba lii dab la sëriñ bi président Macky Sall sa doom ñëwal na boppam altine bii ñu weesu ngir ziyaare la ak feeñal taxawaayam ak yéeneem ci bésu maam jaara bu mag bii waxal la li mu am yéene def ko ci dëkk bii mu wax ne gannaaw boo xamee ne ñi baax ak ñi bëgg lu baax ñépp nangu nañ ne soxna bu Bousso royuwaay la ci mbooleem jigéen ñi bëgg am lu baax ndam lu rëy la itam ci mbooleem askanu senegaal wépp war na noo def lépp lu ñu mën kon ci dëkkam bii di Poroxaan ak màggalam gii di màndargaal di waxtu wu nekk dayo bi mu am moom soxna su tedd soosu li lii nag tax na ba président Macky Sall jël na ay engagement ci ne lépp lu dëkk bi aajowoo moom dana ci taxaw moo gouvernement am ci def ko ci waxtu wu màggal gi di ñëw dana joxe instruction mbooleem service yi pour ñu taxawu ci neena nag mu ngi ñëw tey rafet lu baax moom président taxawaay bi nga xam ne daaray soxna jaara ji ci poroxaan mu ngi koy taxawee ngir jàngal ak yar ndaw yi jigéen ñi ci jaamu yàlla ak lépp lu war a doon taxawaayu jigéenu jullit ci biir këram ak ci biir askan wi sëriñ bi ñoo ngi lay xamal ne suñu xel gën naa dal bu baax suñu yaakaar it gën naa dëgër ngir li nga am yéene tàmbali tàmbali ko sa liggéey ci toolu sa maam Serigne Touba muy taxawal daara ji borom Touba doon ñaan boromam Serigne Touba wax na ci xasida bi mu tënk laqad jaakum bil mustafa lii banal xuduusu madrasatan biha yazulul haza wal jaalu wal kamadu muy ñaan yàlla maa ngi lay ñaan ci darajey yonent yàlla sallallahu alayhi wa nga tabaxal ma ab jàngukaay boo xam ne dina dindi lépp luy lor jullit te di xeex réer ak bépp melokaan wu mën a lor jullit ci wàllu diineem te mën a gàllankoor société bi mu dëkk muy jàngukaay boo xam ne mbakke bu Bousso bind na wax ne moom rekk ak jumaa ji ñooy ñaari naal yi mu bàyyi njaboot gi bi mu fi wujje boromam waxaat na it moom sëriñ Mbàkke Buso ne sëriñ bi fagguloon na daara jooju téere yoo xam ne moom rekk moo ko amoon ci réew mi ci jamono jooya wax na itam ne la ci sëriñ bi yéene woon mooy mu doon jàngu kaay boo xam ne saa yu ñu ci saa yu ñu ko taxawalee kuy laxasaayu ci réew mi di wuti xam-xam mooy doon sa wàccuwaay kon nag sëriñ bi bu la yàlla tegee tey ci bopp yoon wi nga jël naal boobu desoon ci mébétu sa maam xaadim rasul def ko muy jenn yitte yi nga am ci kaw suuf xel yépp war nañoo dal président nag nee na moom ak gouvernement dañu ànd ak yow ngir gën a jàppale waxtu woo xame ne liñ ci bëgg yow sottal nga ko ci wàllu ni nga koy defaree sëriñ bi président mi ngi dellu di la wax ne noppi na ngir jàppale la ci daara jooju mu ne ma it bi mu ñëwee fii ci poroxaan gannaaw bi mu liggéeyee tali yi nga xam ne mi ngi dugg ci dëkk bi fas na fee yéene def li ñuy wax xolu poroxaan muy investissement yu am solo salle de réception ak yeneen jumtuwaay yu wër jumaa ji ak bërëbu soxna si lu mel ni ay dalwaay yoo xam ne yi gan dana fi mën a dal pour gën a taaral dëkk bi yamul ci loolu joxe na ndigal bi mu fi ñëwee ñu def plan directeur d'urbanisme boo xam ne bii dafay rëdd nii nga xam ne bii noonu lañ bëgg noonu ngeen bëgg dëkk bi mel ko ay at ci kanam président delloo it ne bëgg na fee defar fii ñaari pom yoo xam ne benn bu ci nekk dem na ñaari téeméeri mètre ak juróom fukk ndax nit ñi mën a jéggi xur wi di dem di dem ak dikk te mu mën a yaatal dëkk bi te it benn bu ci nekk mu def ci tali boo xam ne bii dem beeg dikk bi dana gën a yomb loolu plan yi pare na bi mu fi ñëwee won na la ko yaakaar naa ne tàmbali liggéey bi dong moo ci des loolu lépp dafay firndeel taxawaay bi mu am ti jàppale këru diine yi waaye rawatina këri Serigne Touba yi sëñ bi ñoo ngi dellu ji sàkkuwaat ñaan ci darajey borom bis bi yàlla gën a sàmm réew mi gën ko aar itam ba lépp lu mën a indi fitna dolli daldi dolli am am yi ak man-man yi ba ñu mën a mottali suñu yéene sëñ bi maa ngi sàkku ñaanal président Macky Sall yàlla dolli ko doole ak jàmm ju mu àggalee yéeneem ci réew mi maa ngi leen di sant man ak ñi ma àndal te di leen gërëm asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladi hadana li haza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 ibnu Cheikh Mouhamadou Bachir mi nga xam ne tey moo fi jëmmi Serigne Touba tey ci kaw suuf mu jox ndigal rakkam Cheikh Mouhamadou Fadil ibnu Cheikh Mouhamadou Bachir mu ñëw fi teewal ko ci jataay bi ànd ak rakkam Serigne Ishaxa ibnu Cheikh Mouhamadou Bachir ak sëriñ El Hadj Maam Thierno ak Cheikh Mouhamadou Bachir mu Cheikh Mouhamadou Fadil. ak Serigne Moustapha Abdoul Khadir ak Cheikh Maodo Fadi mi Cheikh Maodo ak mboolem mbokk yëpp ndax lim nañ ko li ci am solo rek boo xasee tudd Cheikh Mahamadou Fadel mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi te sëriñ bi yóbbandi ko ay kàddu mu war koo jottali bokk jullit ak bokk taalib yi dafa wax naa ko ubbil jataay bi Cheikh Mahamadou Fadel jottali kàddu yi nga xam ne moom la jëmale ci bokki taalib yi nga xam ne ñoo siyaare soon màggal si bis bu tedd bi ñuy màggal soxna jaaratullahi Mariam Bousso muy bis boo xam ne bis bu tedd bu màgg la ndax ku fi ñëw rek la Cheikhul mu waxoon ne ku ku fa ne jàng ma fekk la fa ba nga fekk ma fa kon way juróom ba Cheikh Mouhamadou Bachir woote ko ba bis bi ak si fii tey saa su ak seekoon sëriñ bi war naa jëmale ay kàddu jëme ko ci bokki jullit yi jëmale ko ci bokki taalibe yi waaye bala ñoo sori ñu fàttaliku sunu kilifa gu baax ga di as Cheikh Sidi Muxtaar yàlla na suñu borom dolli ay leeram te taasuñu ci barkeem ndax nëgëni si daaw ci jataay bi at mu jot maag Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo ko fi wuutu tey ñoom la daan boole ñu ànd ñëw moo tax mooy itam mu dëggalaat ndigalu sëriñ ba mu ko joxoon ci nekkoon ko na dem ànd ak Cheikh mu Mountakha bis bi mu doonoon lu ko ñor lu ko itteel kon bu yàlla dogalee tey ca dogalu suñ borom suñ borom bàyyi ko fi muy koo xam ne kenn du ko fàtte ndax jëfam ndax li ñuy wax nit dana yàgg dana màggat waaye jëfam kenn du ko fàtte moom nag suñu borom boole na ko ci jaamu yu màgg yi nga xam ne seen jëf ba adduna tukki kenn du ko fàtte kon ñi ngi ñaan ca dara jàmm li nga xam ne liggéeyal na ko Serigne Touba liggéeyal ko lislaam te muy loo xam ne adduna sépp xaj na ci yàlla suñu borom dëgëral ci njabootam gi mu fi bàyyi ci njiitale Serigne Moustapha di nit ku baax koo xam ne lii ko Ablaye seeral léegi loolu ñëpp xam ci moom ndax diiru waay juróom nekk fi ba ndëgë ni mos ta soppi aw doxinam te lool rek mooy li am solo kon yàlla ko suñu borom aar te sàmm ko may jéggulu nag ndax lim moom boo ci ba dugg rek da ngay fàtte euh, Cheikh Mouhamadou Moustapha ibnu Cheikh Abdoul Ahad moom itam mi ngi ci jotaay bi ci diggam ak kër gi ñëpp xam nañ ko kon euh, ba ci tuuti ci seere rek mooy ñu délégation bi nga xam ne moom la fi président de la république yabal ci njiital ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye nga xam ne diggam ak sëriñ bi ñëpp xam nañ ko ab taalibe ma di doomam di léppam mu jël léppam jox ko sëriñ bi mu teewal fi président ànd ak mboolem ñu mu àndal ngir ñëw ànd ak sëriñ bi ci màggal gi ni nga ko waxee léegi ñëwoon na fi li jëkk màggal gi siyaare si sëriñ bi yeesalaat seen diggante wax yéene yi mu am ci dëkk bi xool si ndigal yi mu joxe ci màggal gi ba xam ndigal yooyu fu mu toll kon loolu nag dafa tàbbi ci liggéey liggéeyub Cheikh Mouhamadou Bachir mi nga xam ne waajuram Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko dénkoon liggéey bi mu di ko taxaw ba mu agsi fii tarafetal ko Cheikh Mouhamadou mu taxaw liggéey bi mu di ko taxawu mu nekk ci loxoom sëriñ bi jox ko digal bu jataay bi jeexee mu leeral li nga xam ne nguur gi def nañ ko ci màggal gi ak yi nga xam ne def nañ ko mu di somb ci biir dëkk bi kon sëriñ bi nga koy sant di ko gërëm di ko ñaanal suñu borom lam ko waxal ba mu dégg ko yàlla na ko yàlla dimbale mot li ab liggéeyam ba naal yi nga xam ne am na ko ci réew mi suñu borom kattanal ko may ko wér may ko kattan ba lépp mu àggale ko ni ko bëggee ndax seen diggante ñoom ñaar ñëpp xam nañ ko ndax jëkk na tey te man mi xam sëriñ bi xam naa cofeel gi am ci xam naa jàpp gi am ci moom loolu nag doy na sëkk yóbbaale la lépp. te keroog ñaanal na ko ñaan goo xam ne fala ak ñaan mën yam ndax nee na ko maa ngi la ñaan ci Serigne li nga xam ne mooy sa bëgg-bëgg Serigne rek laa ñaan ndax daa am loo moom sama bopp am lu ma moomu sama li nga xam ne moom naa ko ci sama jëmm rek loo ci bëgg xamal ne da nga ko am maa ngi la ñaan ci Serigne nag lii sëg bëgg yàlla na la ko defal moo ko wax ci làmmiñam ni ëpp dégg ko ginnaaw bu loolu jàllee nag ñaari seer rek lay indi fàttali ci waxi Serigne ndax jataay bu mel nii jataay diini la jataay fàttaliku la alxuraan da koo santaane waskur fil kitaabi ismail waskur fil kitaabi idris ak yooyu nga dégg yëpp suñ borom daa santaane ñuy fàttali ci jataay mel nii wa kullan naqussu alayka min ambai rusuli ma nusabitu bihi fuadaka wa jaaka fi haasihi alxaqu wa mawizatun wa zikra lil muminin sëriñ Tuubaa ci njaarim mas na am bis chef de canton yi daje ci njaarim yilli manel booba moo leen jiite woon mu ñëw ci sëriñ bi ne ko de canton yi de ak buur yi dañoo daje ci dëkk bi bëggoon laa siyaare si sëriñ bi ne leen nañ dem ba ngoon ñu dellusiwaat ba mu jógee bay dem sëriñ bi woowaat ko mu ne ko mbaa li ma leen wax jaaxalu leen moo ko deen mbàkke yow koy loo santaane rek mu ne ko am na ci koo xam ne damaa ñaanoon sama borom ne ko buñ gisee waat ci àdduna ndax ci jamono liggéey bi la woon yëlli ne ko mbàkke mbaakoon kooku ngoon bu del siwaatee du yàq jataay bi sëñ bi ne ko amaana lee sax du ñëwaat bañ génnee rek yàlla def ndaw loola daa di wax ne man de du ma mën a dellusiwaat sax ndax xanaa yéen a ma ci dugal da waaye man du ma mën a ñëwaat nga gis Serigne Touba lu mu bëgg dina ko suñ borom defale ba ca ngoon nga ñu agsi ñëw toog bi ñu agsee Serigne bi ne leen yéen buur yi ñu ne cell mooy leen yéen buur yi ñu ne cell mooy leen yéen buur yi ñu ne cell ne wuyu leen ndax yàlla leen ko def ndax suñ borom ba mu bindee doomu aadama wàcc ko ci kaw suuf wàccewu fi ay malaayika yi njuuyte leen ndax doomu aadama bu gisee malaayika dee faatu wàccewu fi ay jinne ñu jiite leen kon ay doomu aadama la fi wàcc ñu jiite leen yii nag ak yàlla mi leen bind ak doomu adama yi ni seen mbir deme dafa mel ne sër bi bi nga xam ne dañ koo dénk ak jur mu di ko sàmm waxtu ngoonee mu ñëw laaxan benn ne bii till ga lekk na ko bii sàcc nañ ko bii réer na bu yàggee nu ñu def ak moom ñu ne ko xanaa nangu ko ci loxoom mu ne yéen ak bindeef yi leen yàlla boole ne noonu na ngeen xam ne seen biir ne noonu la demee bu ngeen leen yërëmee te dimbale leen suñ bon dëgëral lim leen jox bu ngeen leen yërëmu nag suñ borom nangu lim leen jox kon loolu képp ku yëngatu ci wàllu àdduna na ko bàyyi xel Sëriñ Tuubaa ko dinkee moo ko digloon waxoon na it ne dafa yëkkati kaamilu alxuraan wax ne kaamil bii de. moom rek laa gën a bëgg ci àdduna bëgg naa ko nag nu raw ni ab tubaab bëgg ab dërëm ne tubaab de lépp lum la wax lu dul ab dërëm laa bëgg lam la wax waxut lu am daan bëgguñ yàlla mi lay bind bëgguñ yonente bi tax mu bind leen bëggante wuñ ci seen biir luñ la wax ne bëgg naa ko loolu ab dërëm rek loolu amut kon sëriñ Touba foofu la nekkoon kon ñu góor góor lu ci bu baax a baax te xam ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacke waxoon na ne sëriñ faggulu leen wërsëg barke la leen faggul daane wërsëg barke nag ma tàggale leen ko day yaar yoo xam ne bu dee wërsëg mën naa dem bàyyi la fi mën ngaa dem bàyyi ko fi mu ne barke nag doo am lu tege ne waaye saa soo xëyee loo soxla mu faju bala ngaa génn àdduna nag mu def ñaari xaaj benn bi ànd ak yow ci sa biir bàmmeel la cee tasaaroo ci biir njaboot mu ne wërsëg nag sëñ bi faggul leen ko barkeel leen fagguloon mu ne barke bi nag wërsëg bi nag mooy yi ngeen di gis ay tegandaay la mu ne tegaay tegandaay nag mooy jëkk jeex ci ndab te kenn du ci suure lim leen fagguloon muy barke bi nag mooy li fi des kon nañ góorgóorlu bu baax a baax ci xam li ñu Sëñ Tuubaa faggul te góorgóorlu ci def ci yitte def ci positif waxoon na ne yàlla suñ borom ba mu bindee war wërsëg da koo xaaj juróom-ñeent fukki xaaj juróom-ñeent juróom-ñeent juróom-ñeent yëpp nag ëllëgu ko tax a jóg mu ne benn bi rek la wàccee ci kaw àdduna juróom-ñeent fukki juróom yëpp nag ëllëgu tax a jóg mu ne benn bi nag moo tax jullit bi li ko war mooy muñ ak sant. tax li muy am ci dërëm baako si néew lu toll na toq ba léegi yéefar bi du ko am juróom-ñeent fukki juróom-ñeent yi mu ne dërëm boobu nag muy néew koy bari mu ne ndono la. loo xam ñëpp ñëpp ko bokk ka njëkk a juddu ba ka nar mujj juddu mu ne ndono nag daa laaj séddee te séddee dafa laaju maandoo mu ne moo tax suñu borom dénk leen mbiri àdduna si mu dénk ko tubaab yi maandoo gi mu gis ñoom moo tax mu dénk leen ko mu ne moo tax yàlla suñu borom da leen a may ba dañoo xam a xam àdduna ba luñ ci xamul rek amu njëriñ waaye àllaaxira da leen ump ba luñ ci xam rek amu njariñ loolu la suñu borom def ci ñoom. kon ñi ngi sant bu baax a baax di gërëm di jox Cheikh Maodo Fall kàddu gi li nga xam ne moo jëm ci wàllu nguur gi rek nag ba Bassirou Mbacke dana ko jottali ndax moom mi sëriñ bi doxale woon diggam ñoom mu wax ne lim sàkkoon ci ñoom def nañ ko dana leeral lépp bu jeexalee waaye ñu xam ne sant moom dafa war ndax alxadiisul qudsi yi dafa wax ne al abdu lam yashkur ni maa lam yashkur man ajraytu nicmata ala yadihi nee na jaam bi santuma li fi santul kim jaawale jaarale xéewal gi ci moom te suñ kilifa yu baax yi kat liñ daa baax baax képp ku leen mës a jëfal daañ ko sant ba ñëpp dégg ko kon nag loolu warteef la woo xam ne euh, suñ borom bi nga xam ne moo sàkk lépp te dara lu ci ne rek mbindeef la ci moom moo bëgg doomu aadama sant ko kon asamaan nit kon ñi ngi jaaxale foofu kàddu gi di jox Cheikh Mahamadou Fadil ibnu Cheikh Mouhamadou Bachir bi nga xam ne moom la sëriñ bi jox kàddu yi santaande yi ak kàddu kàddu yi ndigal mu jëme ko ci bokki jullit yi jëme ko ci bokki taal bi jëme ko ci gan ñi nga xam ne ñoo fi teewal sëriñ bi yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. bokki jullit yi fi daje di bokki taalibe di bokki di bokki sëriñ Mountakha. moom ba Basiru nekkal fi sëriñ tuwaa di sunu sëriñ ñun ñëpp di taalibe di sëriñu yoonu murit yëpp di soppi jullit yu bare bare bari muy leen di nuyu te leen siyaare sant na yàlla yoon bi sëriñ ci yéen bu baax ndax taxawaay bi ngeen taxaw ci bis bii ci soxna si rafet na lool rëy na lool màgg na lool yaatu na lool teew ci bis bi ngir yàlla yonent bi ne cant ko mu ngi koy seeral bu baax di nuyu taalibe yépp li mu jëkk nag mooy masawu mbooloo mi nga xam ne jóge woon nañu seeni dëkk di saar soxna si ngir yàlla am am dog ci yoon ba suñu borom moom seeni bakkan nee na ñu ñaan yàlla sunu borom mu jéggal leen te defal leen dimbal yërmande te di ko jaal seen bokk nag bu baax a baax di nuyu taalib yépp nag jataay bi njiit maam Thierno bi nga xam mooy sunu ak nekk fi ak waa kër Sëriñ Tuubaa fi nekk yépp ak taalib yi ak bokk yi ak julli yi leen di nuyu te leen sant bu baax leen xamal ne moom de lam waxoon ak la mu nekkoon mu du ci teg suñu bët di ko dégg suñu nopp mooy yàlla rek ci la jëm jaamu yàlla rek ñu dolli suñu gëm yàlla ak sunu ko ragal yàlla ak sunu ko doyloo ko di ko topp kem sun kàttan deew tereem kem sun kàttan te di ko jaamu ci sunu jëmm yi ak xéewal yi mun a jox di ko jaamu it ci sunu moroomi jaam yi nga xam ne ay jaamam lañu di ko jaamu ci ñoom ci dimbalante ak yërëmante ñu ngi sant mbooloo mi nag bu baax di sant ñëpp am na nag ci wàllu nguur gi lu ñu fi liggéey ay liggéey yu rëy yoo xam ne nii ñu ci làmmiñu Serigne Bassirou mii dama ko wax ak yéen baatu sëpp déggu ko ndax rëy na te rafet na te seen bët jërë ngeen jëf. waaw Cheikh Mamadou ne ñu tàllal sëñ bi ñaan ndax loolu du léegi. dëgg la. na ñëpp amin mbakk amin. amin Mbàkke ne ñëpp tàllal amin Mbàkke sëñ Muntaxa yàlla fi yàgg Cheikh Muntaxa yàlla fi yàgg amin Mbàkke ñu may kilifa yi ñu génn